metti na ku ne réew mi day dëggul liggéeyu jàmbur tribune yéen a kaay ne ma kaay laaj ma ñetti nit faatoo ci ndox mee ko sabab yéen a kaay bi ne ma tubaab dafa ne après la pluie c'est le beau temps ma après aujourd'hui c'est le malheur wala kay la jaaxle ci réewum Sénégal ñetti nit ñoo ñàkk seenu bakkan de ma nga am nag ci diiru benn fan yéen kaay bi dee média bi ne ma benn bi moom ma nga am ti yëmbal ñaar ñoo xam ni nii ñoo bokk benn baay ñoo faatoondoo seen néeg moo amoon ndox ñu bëgg koo évacuer ci saa si nag la nu daal di ñàkk seenu bakkan libération yéen kaay ne ma tegal sa loxo bul sori ma nga amee ca quartier Daaru Salaam ñoom ñaar ñëpp na courant waleen maas ñu daal di faatu ndox ma nekkoon seen néeg lañ doon pompe mu génn Sadia Diatta am fanweeri at ak juróom benn ak Noa Diatta am at ak benn ci saa si la daal di ñàkk seenu bakkan tribune yéene kaay na ma ab court circuit moo tax na courant ba daal di màbb seen kaw maas leen ñu daal di faatu ci saa si yéene kaay bi dee média bi ne ma bul dem ci diiru benn fante kuunu ni tuudu ndooy daal dina fay faatu ne ñaari frère yi nañu faatoo ci daaru salaam e noo nee la faatoo moom mi lii nag yóbbu mbir mi lu toll ci juróom-ñaari bakkan yoo xam ne daal dina ñuy rot te dara nag waralu ko dara lu dul taw bi suuf su aane nguurug Sénégal day moo ci waaye ANACIM xamal na leen ni nañuy saytu bu baax a baax météo ndax foofu la jamono toll toll xool taw bi kañ lay am bu amee ban degré lay toll ngir nag mën a xam askan bi mën nañoo soobu ci mbënd am déet yéeni kaay bi daal di may xamal ne moom Jabel Njaay daal dina leen di xamal ne a nag taxawal ab radar fii ci ndakaaru boo xam ne nag day saytu dëgg-dëgg taw bi ak jafe yi nga xam mi ngi koy daal di jur saa bu nawet jubsee L'Enquête moom ni ki démb daal dinay rote yëmbal tribune yéeni kaay ne demal ca commune bu jàmm gën si kàmbaaw lu toll ci juróom ñaar fukk ak juróom benn ci quartier ci boppam dañoo inondé mooy département bi nga xam ne moo ñoo ëpp ñi am inondation mbënd saa tembe ci diiwaanu Pikine askan wa nag di dund lu métti loo xam ni maar day taali condition yu métti la askanu jàmm gën si kàmbaaw di dund ndox yoo xam ne daal dinay nangu seenu kër seeni bagage ak seeni matériel daal di yàqu-yàqu gu métti lool waxtu waaw la ca gën a ñaaw yéene kaay bi ne ma gars yi day dañ koy politiquer moom député maire bii di Cheikh Alioune Badara Bey dafa dem ca marché ak yenn bërëb ya xamal leen ni bépp matériel boo xam ne jënd na ko ngir tàqale leen ak mbënd nguurug Sénégal moo ko nag ngir wàllu politique Fall ne ko déet bàyyil victimisation bi taxaw ni état bi dafa bloqué fond wu maire bi faux débat la Coumba Ndoffène ne ko maire laa woo te xam naa ni maire bi lu mu bon bon am nag moyen boo xam ni mën na jàppale askan wi as néew ci mbënd mi nga xam ne saa si tembe askanu jàmm gën si kam maaw ñu ngi koy dund Coumba Ndoffène ne ko yàlla ji de moo wàcceeg nawetam waaye nag ci sab góorgóorlu ca la askan wi mën a tàqali ko ak coono mbënd bi tribune yéen kaay na ma bu ñuy di mu ñuy di raas déem mécanicien yi saa si tembe seen gannaaw bandang waxatuñu dara mbënd mi yàq na oto yi tali yu bon yi tembe bari pax yàq na oto yi yi ña ngay defar di encaissé yéen kaay bi dee média ne ma waxtu woowu aéroport bu ndar bi nga xam ni barki démboo njaay lañ ko inauguré barki démboo njaay yéen kaay bi ne ma aéroport bi ci boppam ñu def ci ñaar fukki milliards ak ñett aéroport ba ma ngay féey ma tëmb ci ndox nekk ci état boo xam ni daal dinay critique ba maar day taali tribune daal di koy nataale ak photo aéroport boo xam ne foo romb rek yaa ngi koy gis ndox yoo xam ne dafa wër bâtiment ya ba àgg ba ca bi le jour daal di may xamal ne ab gaal daal suux ca diwaanu Podor de magistrat Bassirou Ndiaye kenn gisatu ko di may xamal ni saa si tembe réewum Sénégal nag dëgg na liggéeyu jàmbur ndax nag gannaaw mbënd mi nga xam ni mi ngi ñuy toŋal bakkan yaa ngi ci xottu gerte ca diiwaanu Ngunjaan juróom benn fukk ak juróom benn camion boo xam ne nii damo ñoom la daal di def xeetu ammoniac la boo xam ne mën naa faate saa su ne ay tonne danger yoo xam ni nekk na nag ca diiwaanu Ngunjaan askan wi nekk ci njàqare goo xam ni maar day taali docteur Béje Mbow mi nga xam ne ci wàllu chimie la xam-xamam daal di aajo woo xam le ni mën naa andil askan wi gàllankoor de ci na nga xam ni noonu lañ koy stocké ak naka lañ koy tegee l'enquête Quotidien dikkal ma xamal li nag la doon boy ca benn pàcc ci Ezaya fii ci Mermoz nguur gi day daal dina ciy wis ndox mu sedd guy turbine yéen kaay ne ma benn pàccu Ezaya boobee lan façon yéen a jébbal nag benn sénégalais ngir mu tong-tongee su soosee ci lu toll ci juróom fukk ci ay at te la muy fay ci wàllu baay boobee du bari waaye Macky Sall xam leen na ni baay boobee nañ ko annulé tàbbal ko géej fa yàllaahu L'Enquête Quotidien ne ma moo day ministre Cheikh Omar Anne daal dinay xam le ni foncier boobee day xel sax da ko xalaatul libération yéen kaay daal di may xamal ne moom sertem daal dina nay ñàkk terrain bu SAA bi leer na ab dil la woon boo xam ne daal dinay tàbbi géej laataa certain mi libération ne ma domaine ci boppam jëloon na fa lu ci ñetti junni juróom-ñaari téeméer juróom-ñaar fukk ak ñaari mètre carré yu tegus la junni ak benn yu teg ñetti téeméer juróom-ñeent fukk ak ñaari mètre carré jébbaloon nañ ko ay américain yoo xam ne laajoon nañ sax tuuti ñu yokkal leen ko ngir ñu mën a def parking le témoin yéen kaay ne ma ci coowal juróom-ñetti junni mètre carré yu UCAD yii ndax na gouverneur bu ndakaaru dugg ci ci coow ndax nag moom ci boppam nee ñu moom Alassane Sall moo xaatim document promoteur immobilier bii suuf si waaye nag coow li coow li mooy du moom kese lan moo ko jiitu gannaaw ba nga xam ni président Macky Sall annulé na joxinu suuf si mbaa nag du ñu jël gouverneur bii daal di koy tongal wala it ñu daal di koy def bëyug sarax gi xëpp ko lépp ci coow lo xam ne ñañ ca war a tudd mën nañ leen fàtte le quotidien le quotidien ne booba day aéroport international Blaise Diagne boo mooy tuwul wàcc fa mbaa yéeg fa roppalaan dem mën naa gàntandi fa yàllaaxu le quotidien le quotidien daal di may xamal ni ñeenti milliards la ñu yoreel Sénégal waa aéroport boobee ñu daal di bloqué na contre aéroport bi liggéeykat yi ni buñ leen fayul benn roppalaan du fa naawee Walf Quotidien ne ma coow laa nga ci assemblée nationale de waaye itam tabbinu gouvernement bu yees bi Papa Diop fan lañ koy dugal l'exclusif yéen kaay daal di may xamal ne saa si tembe day moom président Macky Sall nag mi ngi ci coow ndax nag ñamu àndal joxoon leen boppam ay disque lan yoo xam ni saa si tembe mëntun tëgg benn mbalax te nag dëgg-dëgg ñii ñoo yor système uk Macky Sall yéen kaay bi ne ma ay mag lañu de mu di Idrissa Seck di Aminata Mbengue Ndiaye di Mahmoud Saleh di Moustapha Niass ay poids lañ yoo xam ne léegi ay xob lañu lan la ñu mën a andi léegi président Macky Sall laaj baa ngi noonu samp Sud Quotidien daal di may xamal ni en tout cas assemblée nationale day yi Jibril Diop ci Vox Populi daal di xamle ni yeewi askan wi day ma ngay te Pastef ak taxawu ñoo koy yàq laas yéene kaay ne ma loo ci mënti dégg parti socialiste ma ngay suuxandi la wolof naan boo tëbee la yeneen parti socialiste saa si tembe fii la toll ci réewum Sénégal suux goo xam ni moom parti socialiste ay dizaine yeneen collectivité yoo xam ni las yéene kaay nee na ma ñàkk na ko ci les élections ay député am di wàññeeku bu baax a baax ñu bari ci parti bi daal di gàddaay wuti feneen yéene kaay bi ne ma booloo rek booloo day moo mën a soowee parti socialiste lii ko di jee moom dafa xëy samp laaj ñaari at gannaaw bi nga xam ne nërmeel nañu Sandaga lan la Aliou Ndoye di xaar ngir tabaxaat Sandaga Le Soleil yéene kaay ne moom président Macky Sall day mag ci coupe du monde ba xamal sunu gaynde yi ne nguur gi dina nekk seen wet tribune sport daal di xamal ne moom président Macky Sall kay bari nay dige yoo xam ni daal defal gaynde du monde bi bu ñëwee fii ci réewum Sénégal bés bi le jour de moom président Macky Sall ci boppam mooy charme Miss Monde daal di nay may toqub biisu kubba daal di koy xamal na ci sama kàddu Sénégal mi ngi lay firndeel mbëggeelam te boo nangoo daar daar ñu daal di fas sëy bi yàlla na fasu te bu amee bañ làmmin mën caa bañ a mën dara te bu sëy sëyit bu mu fay bu mu randat di ñaanal kubbeeg Sénégal sëy bu barkeel ngeen yendoo jàmm mbokk yi merci Mantoulaye ci revue de presse bi dina dellu si waat euh, à 13h bu soobee yàlla ak El Hadji Mansour Diop si xibaar première partie bloc d' information euh, la matinale dañuy daal di jëm ci suba teel rek ànd seeg équipe bu jeudi bi incha allah laata loolu euh, dañuy daal ci page